waaw dina leen may eh ma wuy leen ma waaw. Oh. waaye écouté eh, élection bu jaabi dañ ko. am kaddu. liggéeykat yi yéen a am kaddu. yéen a am sañ-sañ lever le d'ordre. mais ministre bi bu leen ñaanee li mu leen ñaan. ah su ngeen ko gantalee. ndax moom aussi dina am confiance ci yéen. musuma leen a nax. ci Dakar Dem Dikk mais dinaa leen jox wax leen ministre bi li mu leen di dig fii dana ko def dinañ ko eh, eh. tous les secrétaires généraux eh. et les délégués du personnel dem leen réunir lever le mot d'ordre de grève. dañu wara a ngir waxtaan bu étaler problème yi am fi yenn préparer leen ko dinañu en attendant en attendant ñun dañu ñëw comme ni ko président Bassirou Diomaye Diakhar Fay waxé ngir ci njub jubal ak djubanti loolu nak day jugee ci autorité wayé day jugee ci employé day jugee ci sénégalais de façon globale Li xeyna c'est une action bo xamné spontané mais nañ ko waxé non, mais grève dafa am ay normes d'accord ngén ko liñu mëna wax répétition moy mbébét gi taxaw nañ ci parce que jot nañ information à partir de ce moment liñu mëna wax rejoindre kay te xam ne action spontanée la grève mën un am ci secteur bu c'est encadré encore une fois Je vous di wax ni ñu ngi ci parce que depuis ce matin Nous ngi wax ak premier ministre di wax euh, euh, la présidence sur la situation de façon globale mais particulièrement de Dakar Dem ça veut dire que les solutions ne vont pas tarder, Inch'Allah. Tout ce que je peux demander et réitérer, c'est de reprendre le service et nous laisser faire le travail qu'il faut. li nga xam te ni métti de trop ba ci kanamu yàlla euh, DG bi nag ñu avons koy mu ngi tudd El Hadj Gueye un contrat, ni que nous ñuy signer ay contrat ay contrat de travail aussi nous avons dañ am ay carte bancaire de comme les fonctionnaires le font

amna na ñoo xam te dañu bàyyi seen liggéey benn benn beneen entreprise ñëw AGETIP kon donc loolu dafay créer naan chômage frictionnel donc loolu nag dafa bëri ci dëkk bi dañu bëgg nag loolu mu jeex exploitation l'homme par l'homme ñu ngi nag demande son excellence président Diomaye mu dimbali ñu pour que nit ñi jot seen salaire. ñun ñu ngi liggéey total depuis des années ñu xëy licencié ñu sans sans fay ñu suñuy droit ak suñuy indemnité bon en fait la plupart d'entre nous ay CDI la de avec 3 trois ans il def nañ fa trois ans ñii def nañ fa dix ans surtout avec les ay mères yi nga ay mères de famille ak ay pères de famille en plus amoon na ci nga 38 d'entre nous ont licencié au euh, au commencement plus de 38 personnes maintenant si 38 personnes yoyu on a deux femmes yi nga elles sont étaient en congé de maternité ñu décidé leen dac alors que ça c'est grave nit mu ëmb ba diis nga dàq ko nga ne doo ko fay droit bien que nous nañ ñu fay suñu droit mais injustice boobu la ñuy dénoncer c'est pas normal Total nekk entreprise français ñëw di employé ay sénégalais te mun naa ne ay sénégalais ñoom ñoo ñuy dàq loolu c'est pas normal. pas le gouvernement on n'aide pas le ministre du travail à aider les sénégalais à service des sénégalais ñun ñëpp xam nañ ne lii lu yàgg li fi nekk la waaye continuité de l'État moo indi foog ñu régler ko et puis 24 mars def pour jël un nouveau départ départ bu bees nag bokk na ci saafara lii mbokk yi boo waxee ñu ne la sentiment anti français pour wax pour jël kaawu total boo waxee ñu ne la sentiment anti français ana sentiment anti français total moo leen gën a xam ne doful jinne jàpp ko l'opinion publique française n'acceptera pas de dégg une entreprise française ak fu mu nekk ci àddina bi mu ngi doxalee nii ci ay liggéeykat li ñu xamoon mooy séddale bii bukki bii njuur bii sàmba waaye total li muy def mooy sama liggéeykat dégg ngeen waa UNU lu ñu wax te lii ñuy def liggéeykatu jigéen yi di di licencier arbitrairement comme seen mbokk yu góor pire di leen di licencier ci période de grossesse ci période de congé de maternité du dëgg du yoon loolu la ñu war a xeex mu jóge fii góor bu ko defee baax na jigéen bu ko defee baax na buñ ko defee ci gouvernement boo xam ne ministre du travail c'est un homme ou une femme peu importe li ci am solo mooy ñu mooy ñu dindi ko. et incha allah dinañ ko fi dindi ndaxte comme ni ngeen ko waxee dina egg ci gouvernement au niveau de l'Endeng parce que des gens mal intentionnés se sont partagés le gâteau en pensant faire disparaître ce site qui écologiquement fait vivre les populations qui se sont levées aujourd'hui pour dire non. Non à la disparition de l'Endeng. Parce que nous vivons de l'Indeng. ñun ñëpp ñu ngi yuuxu ndax lii nga xamante ne moo fi nar a jib su fi pauvreté dugg fi pauvreté dugg na fi ndax entreprise bu fayet lay doon société bu fay lay doon ndaxte ñun bu xëy suba si nga gàddu sa xottu soo ñëw liggéey si employé yaa ngi fi am pagaay liggéey baa ngi fi am pagaay yaa ngi fi gee yaa ngi fi ñu Casamance ñëpp fi lay ñëw di liggéey si waxuma la nag jëm yi nga xam ne ñoo nekk biir Tëngéej di fi liggéey tey maanaam li may yëkkat julli jëmale ci kilifteef yi mooy ñu xool askan bi xool li nga xamante moom la julli di bëgg te lépp dafa war a ànd ak li nga xam ne tawféex la ndax bërëb bii bërëbu liggéeyukaay la maanaam soxna yi nekk fi ëpp nañ 2000 ëpp nañ 2000 ñi fi ñëw fii bari na waa Touba waa Gambi waa Thiès waa Diourbel waa Njaareem waa Caaroy banlieue bi amul fu doomu adam yaay di jógeen ñëw fii Lendeng amul Kër Masaar ba Diawbe ci la ñuy liggéeyee suuf Lendeng moom dañ ko fi war a mën a bàyyi te loolu la ñuy sàkk central bi tuwaa fakala suñu diggante ak ñoom rafet na trop parce que ay dëkkandoo lañu boo xoolee man li andi sama relation ak ñoom ba 2017 yàlla dogal ma ànd si transformatrice koo xamante moom la ñu tànn mu àndoon ak ñoom dem central bi nekk Moro pour saytu ji ko boo xoolee tey comme ñi fi nekk tey di wax tey di OSG yi koroog bi ñuy dem daggaloon nañ leen bi pour ñu ànd ak ñun pour dem saytu ci central bi nekk foofu ba xam ni ñuy wax ah na loolu mais bi yooyu daggaloon nañ ko ak seen ak yooyu yëpp mais mujj ñu dem dañu bàyyi ba le jour si ñu gàntal waaye mais gis nga koroog mobilisation fi nekk tey moo fi nekkoon nga xamante ne te loolu tamit kii ka war moo directeur Malick Seck bi nga xamante ne moo fi nekk lépp lu mu fi fekkoon benn daf ko yokk bi ñu ko yàlla mayee macha allah mu am na loo xam ne mat na trois ans ndox mi dafa dawoon dugg ci biir mais bi mu dawee dugg ci biir man koroog man mii la ñu oo képp koo xamante ne ndox mi dafa laal koroog produit bi nga teg foofu da man mii maa doon xool faa mi koroog dama ko ba xam nangam la ñu jël som boobu fay la ka ñu yóbbu la mairie fay la sa xaalis boobu ma mu loolu gëj na am bu mu amee léegi mat na trois ans si ren wax fa dëgg yàlla te bi ñu leen fayee seen produit ba pare dañu leen bàyyi waatax produit boobu ñu jigéen ñu jëlaat seen produit loolu central bi mu ngi si doo ajim parce que central bi dafa nekk mais bëggul a lor kenn central bi nag mën nu ko fee jëlee parce que nun dañu lëkkaloo ñoom nun noo ngi central bi tey noo ngi si àllëg tabaski ñu ngi central bi dañuy financé xaalis korite dañuy jox ay nag diñu jox xaalis tam xarit dañuy jox nag tam xarit diñu jox ay xaalis kon nag ñoom wàccoo nañu noonu nu ngi ñaan yàlla na central bi gën a avancé ndax li ñu nuy defal mu yokku wàllu wér yaram wàllu wér-gu-yaram fi mu ne nii ñoom seetal nañu ne ay carte de santé seetal nañu ne benn carte de santé bi jox nañu ne carte carte mutuelle yi pour boo ko xamee ne am na loo yëg sa yaram nga dem ñu seet la ñoom ñoo res yëpp commencé depuis loor si yow central bi wàccoo naanu kenn ne kii xam ne bëggul nga feebar mu seetal la carte de mutuelle pour boo demee boo yëgee dara sa yaram ga dem ñu soigné la moom moo lay faj moo lay jël en charge ñoo leen di fayal léegi ñun ah, école yi xale bu dëkk mi nam dem université sa paas sa pay sa central bi lay joge ku feebar man mi sama doom dafa feebaroon entrée principal war a fay un million cinq cent mille central bi ñoo si jàppale te en in ñenn ñi ñëpp ñi si ñi mu def loolu bari na du minam rek bari ñi seen du fe ku ne xam na ni Daaka Médina Gounass fukki fan la yoo xamante ni dañuy tase ci àll bi di jaamu yàlla di wàcc alxuraan di dellu ci sunu boroom ngir ñaan ko mu dolli ñu jàmm waaye ngir ñaan ko lépp luy ngëneel. sunu ñëw nag amaak ñi ma ñëpp muy préfet sous préfet ñi ma gunge ñëpp dañu ñëw pour indi yóbbante boo xam ne kilifa yi réew mi ñoo ñu ko yóbbante. kilifa yi réew mi buñ ko tuddee day tàmbali ci président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye tegu ci premier ministre Ousmane Sonko. waaye topp ci le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine ak képp kuy membre ci gouvernement bi. indi nañ seen nuyoo indi nañ seen ngërëm waaye sàkku nañ ñaan ci ñoom ngir li nga xam ne mooy la ñu sumb ñun ñëpp ci Sénégal ñoom ñëpp ñu réussir ko. waaye it ñaanal réew mi ñaanal askan wi ngir fii da suuf soo xamante ni suuf su tedd la te yaakaar nañ ni ñaan bu ñu fa yëkkati ak jafe-jafe bu ñu mën a am ci Sénégal bu ñu dellusee fii yàlla mën nañoo jàppale ba mu faju ñu delluwaat rek di fàttali nit ñi ne am na taxawaay ak matuwaay bu ñu war a mën a am la dalee sa ñuy jóge ci sunuy kër ba bañ yegg si fii ci barab bi muy ñëw bi ak delluwaat bi nañu delluwaat ci yar rawatina ñi nga xam ne ñoo yor ñu bàyyi xel ci yoon wi bàyyi xel ci li ñuy yépp